jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne ñu ngi waat fii ci géejawaay ñëw ci ëtt boo xamante ni ëtt mbër la waaye ëtt làmb la làmb ci Sénégal kenn du ko tudd te doo tudd géejawaay bari na loo xamante ni def nañ ko fi ma seet ci xale boo xamante ni làmb am nañ ci moom yaakaar waaye am nañ ci moom cër am na ci loo xamante ni gis nañ ko ci moom bu simee nga gis ko gis corpulence bi xam ne kii vraiment champion la muy doon doon doomi mbër gannaaw loolu dama koy bàyyi mu nuyoo muy Mbaye Diaw numéro 2 ma koy bàyyi mu nuyoo su ko defee mu nuyu mbokk internet yi waaye dama koy jébbal ñaari nuyoo nuyoo bu njëkk bi mooy sama nuyoo ak nuyoo Père Birahim Ndiaye bi ma ko waxee ci yow laa jëm si yóbbante ma noonu nuyoo te yóbbante moom euh, jox borom rek a ci war maa lay nuyu bu baax di la siyaar waaw salaamaaleykum waa wasaare maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku si nekk turam ak santam di leen nuyu bu baax di nuyu sama gaa yi nga xamante ne si ñoo bàyyi seen yitte yëpp ñëw fii ngir man te noonu lañuy sonnee si man chaque instant wax dëgg yàlla chaque instant kenn ku si ne mu ngi daj lu metti ngir man te xale laa boo xamante ne si xëy na tekkiwu ma dara si réew mi waaye am na fuñ ma teg macha allah di ñaan yàlla mu. yokk ko bu baax Père Birahim nag moom dama koy ñaanal gudd fan ak wér ndax euh, sama premier combat laa bëre Amadou Bari kii euh, Ibba Mar mm-hmm. mu toog ak ñi mu toogal ni leen xale bii de xale bu mën a bëre la waaye fu ma ko mënti gis xamuma ko nag fu ma ko mënti gis naa ko may xaalis mm-hmm. léegi nag benn paa bu mu toogal ni ki kii doomu Souleymane Diaw la daaw ma dem CNG di renouveler sama licence. renouveler bay génn dajeeg moom. ma ne ko pap na nga def yaa ngi si jàmm mu ne ma maa ngi si jàmm yow la kan ma ne ko Mbaye Diaw doomu Souleymane Diaw mu téye sama loxo génne kalpeem génne xaalis ni ma boo si fekkoon xaalis bu ëpp lii ma jox la ko ndax maa toog estaat nga bëri bëri bu ma neex ma dig la lii. Mm-hmm. kon maa ngi koy jaajëfal di ko ñaanal gudd fan ak wér. ak suñu moroomu pap yëpp. ñi nga xam ne dañoo xaw a jagadi yàlla fëgg seen bopp yëkkati leen ki si ne dellu si njabootam ñi nga xam ni ñoom yàlla jël na leen yàlla yërëm leen te xare leen àjjana. Mm-hmm. Euh, tey mu bari loo xamante ni war nañ ko mën a waxtaanee ci làmb li jëm ci yow euh, li njëkk mooy lan moo la dugal ci làmb. man lu ma dugal ci làmb mooy deret te toujours dañ naan deret du fen mm-hmm. euh, Souleymane Diaw lu mu def ci làmb kenn du ko nattaabale. Mm-hmm. àddina yëpp xam nañ ko macha allah tey man dama nekk xale bëggoon football trop di football chaque instant mbër yi di entraîner suñu kër dafa rëy waalo te kenn du tëgg làmbate duñ ko yëgal waa kër Souleymane jaw léegi nag chaque instant may footballé ba benn mbappat bu njëkk am suñu dëkk mbër yi di entraîner sam benn mag muy jawdin ñëw sànni ma seet ni ma tey da ngay bëre ji ma ni ko ma ñu forcé ma ba yóbbu ma tournoi ba ma jàpp mbëri man jour laa jàpp leen di leen daan ba yàlla may ma ma jël tournoi bi. kon moment bi ñu naan la demal bëre ji. yaa ngi koy bañ ci yaram bi. waaye deret jee ngi koy nangu ci jëmm ji. deret jaa ngi koy nangu ndax ku ma mosaan wax demal bëre ji ma bañ ndax mosuma ko woon bëgg man mais deret toujours du fen mm. yàlla moo dogal lii si man tamit ma dugg si sama yaay kontaan si. sama papa kontaan si ñaanal ma si. demoon naa ba benn instant ma découragé si làmb ni damay bàyyi bëre sama papa jaral ko jóge waalo ñëw fii ni ma doo ko bàyyi. ndax da nga ay nit dañu yaakaar si yow te yaakaar boobu doo ko tas. continuer nga bëre. loo tax ma ni la bëreel xam naa ko te incha allah nañ dem ba si kanam yàlla baax na. kañ nga dugg si ca arène ak ñaata combat nga bëre. maa ngi bëre 4 combat ren. 2017 euh, laa dugg si arène bëre 4 combat. am ci ñaata ndam. trois victoire benn défaite. Hmm. waaw daan ma daan euh, TF bu écurie Double Less. Hmm. daan caatuwaalo bu dóor dóoraat. Hmm. caatuwaalo bu dóor dóor mu njool mi yanu ba ci kaw dóor suuf. <laughs> daan caat bu dóor dóoraat. ma ñëw troisième combat kii daan ma Tidiane Faye bu Songane Gueye Tëngéej. Tidiane mu daan ma. sama quatrième combat ma bëre daaw combat booy Niang Lac de man ak booy Seedo ma daan ko. Mhm. Mhm. Euh, làmb yooyu euh, ñi ci bëri euh, bu ñu lay contacter ci làmb ak moment bi nga yaakaare woon ni cër bi nga am ci làmb nga bëre daanoo bi nga daanoo ba defet bi lum la def. defet bi daf ma xamal làmb. ci nan la la ko xamalee. si ba ma ñëwee fii si secteur bi. wallaahi lazim keroog man sama xol lu ma jooyloo dafa jafe mais keroog damaa jooy ndax li ma fekk fii. Mm-hmm. ñëw macha allah ñëpp génn gàttandu ma gàttandu bu rafet ma gën a am courage gën a entraîné man ñii xam nañu li may wax guddi ak bëccëg dama koy entraîné toujours damay entraîné su ma entraîné wu sax damay feebar. bañ naka ba sama copain yi dañ naan ma des fois da ngay toog far force doo entraîné ji mais far force damay nëbbatu ji entraîné mm. ngir am li nga xamante ni si am foo xam ne dama fa teg sama bët pour dem fa bu soobee yàlla mm. Mm. say jaloore papa euh, wax nañ la ko wala am na loo ci dégtal wala daan nga seetaan ay combat no sama papa man euh, ku si mel ne ay per Ball ak suñu côté yële maanaam pas kilifa yi yu si bare ñoom ñoom ay wax ay jalooreem moom tamit macha allah mu wax ma si carrière loo xamante ni si xëy na bu ñu si tegee suñu tànk mën nañu am avancement ndax gis nañu carrière ndax koo xamante ni si village la jóge ba muy jóge village télé amul mm. rajo amul journal amul mm. mu ràññee ba wane boppam fii si senegal kooku ndaanaan nga mm. mm-hmm. euh, combat yi nga jot a bëri yëpp euh, sa premier combat arène ngay dugg si ci làmb euh, doon doomi mbër am jéego yoo xamante ni séntu nga ko ci làmb sa première combat arène nan la dikkee nan lañ la taxawalee combat bi ak bi nga koy waajal wàccaay bi nu mu demee woon. combat premier combat arène dama nekk euh, dóor dóoraat dóor waar si ñoom Yékini Junior man nekk foofu euh, mbër yi di am combat boobu jamono Fadel Fadel Ndiaye mu ma rënk denc ma benn côté boo waxee mu ne carrément. dama bëgg boo duggee si làmbaj ji rek ubale làmb ji. fekk ñi ma fa fekk ñoo ma mag fuuf si làmb. premier combat bi ma ñëw entraînement rek mu ni ma pare nga pour bëre ma ni ko waaw pare naa pour bëre kañ la mu ne ma quinze jours la ma ni ko 15 jours man pare naa pour bëre ku mu mënti doon mu ni ma yow ak teef la écrit Double Less ma dem muy combat Tidiane fay ak ki Tidiane fay euh, maa moo bëri woon combat bi. moo grand combat bi. léegi ma ne ko amul benn problème. mu jox ma joxuma avance. ni ma léegi da combat bi dina ko bëree jour tel dina la jox avance ah, ñu dem ba trois jours des ci combat mu soog may jox avance. Mm-hmm. Matar Ndiaye jox ma avance ma jël combat bi ànd ak samay mbokk dem sama dëkk ñaanlu pare ñëw. Mm-hmm. dem gisuma ku may bëreel ba léegi ndax xaw ma ko ma dem ba esat mbër yi di dugg ci jour ba dafa mel na dafa am loo xamante ne si yàlla wan na ma ko wala cërale na ma ko nit ñi toog mbër mu dugg si ñu ni ma ndax kii la ma ni leen du kii te mosuma gis ku dugg si ñu ni ma kii la ma ni leen du kii moom daa dugg si rek ma ni bër xet jóg ni leen kee laay bëreel. moo xam ko. wallaahi yàlla xam na ni xaw ma ko yàlla xam na ko. loolu garaaw na de. tamit avant ngay dugg <laughs> su ma doon gisaane ubale làmb su ma doon gisaane. Mm. Sénégal ñëpp si jàmm la ñuy nekk ñëpp ay am. billaahi léegi nga ñëw mu dugg si ñi nga àndaloon ñëpp nga leen kii la. kii la hmm. ma jóg ma daw dajeeg moom moom tamit xamul ndax man laay bëre mais man xam naa ni moom laay bëre. Hmm. ma daw dajeeg moom turne daw dem si Matar Ndiaye ni ko kan laay bëre mu ne ma kee ngay bëre ma ne ah alhamdulilah rabil alamin ñu bëre. arbitre alhamdulilah bi mooy nooy neex lañ la jox daal. ah alhamdulilah Tidiane <laughs> euh, adversaire alhamdulilah loolu kay mooy looy leex lañ ma jox. bokk xam nga xam nga xam nga caatuwaala bu dóor dóoraat gis nga ko nu mu toll. def ci arénateur bi surtout ah, jeex na. dam ko yenn ba si kaw dóor ko suuf. moom jamono yooyu tamit ki ma doon bëreel premier combat ëpp na mu ëpp boo xam ne samay supporters ne nañ kii doo ko daan. mais jël bu gaaw laa ko daan. ndax man yàlla maye na ma mbër làmb si làmb loo xam ne bu ma xasee dugg mbër bu njaabee dox rek. xam naa fu ma ko yaw yàlla may na ma loolu. nga doon xale. Euh, làmb yaakaar la euh, tey fi mu toll nii buñ ne loolu kan moo sa idole ci làmb am nga idole. Hmm, am naa idole sama idole. Hmm. ñetti idol la am si ñi may roy. ku ci nekk da may wax lan moo la gën a neex ci moom ba tax nga ko ciy roy. Hmm, première ki sama papa laay roy. lu tax may roy si moom. dafa daj lu metti pour nekk champion fii Sénégal. te ba pare ma roy si moom si loo xamante ni si bàkk la chaque instant bu ma duggee làmb ñu si bare bàkk bi lañuy ñuy séentu si man. maa ngi koy roy si moom bu sa des Balla Gaye 2 mooy sama idole. Balla Gaye moom. bi moo gën a neex si moom bëre bi muy bëre. Hmm. moo gën a neex si moom. ndoxtu bëreem ndoxtu bëreem. ndax bu duggee si làmb rek da ngay xam ni kii dafa nar a bëre. troisième bi mooduloo lu tax Modou neex ma moom tamit ñeme footing bu mu ñeme footing moo tax mu neex ma saa bu simmee ko kenn du ni cam loolu laay roy si ñoom. te saa su ne boo xëyee yaa ngi koy def. saa bu nekk bu ma xëyee bu ma xëyee maay entraîné ji. Hmm. chaque instant nii période bi tëj na mais dafa am samay mafia boo xam ne damay ànd ak ñoom après timis di footing li metti bu ma paree contact ak ñoom pare ñëw sangu saa bu ma tëddee sama lal ñii xam nañ lu may wax foo ma fekk maa ngi nguñam nguñami di bàkku di jàng bàkk di répété ay bàkk ngir lu nekk suñu kanam ndax dañu fas yéene delloo lu fi mag ñi bàyyi woon loolu loo xamante ni euh, lu am solo la ginnaaw loolu dañuy njëkkee fi njëkk fi rek muy bàkk parce que bàkk dañ koo gëj gis ci làmb Bàkk day bëgg a raaf ci làmb bari na xale yu bari yoo xamante ne ay champion lañ ci làmb boo leen joxoon micro ne leen bàkkal mënoo ñëw bàkk tey nag dinaa làmb xool nga bàkkal ma ma dégg ay ca waaw laa ni bisimilaa ma tàggu yàlla tàggu yenente yàlla muhammad ma tàggu jibril ali salaamu laa tàggu faatamata bintu yaa rasulillaay ni yàlla moo di buur di buuri buur yi di buuri malaaka yi ni saxa saxa jey saxa janjang yaa jey ji ba banding wuli wuri banta jaare feew la wuri banta jaare wuri wuri mukk ma dëkkaale ak yàlla ku xaw yàlla sooy ni salaxu mexe malaxu mexe curulu mexe tàmburu mexe jaasi kiti king gobar limi limi fett abada daa iman xànjar dama koy wiñaar sàllaaw ndaxam neex na yàlla nañ pose foofu ba si kanam ma àggale lu wallaay ah waay gars a yéex a tàcc waay gars tàcc leen loolu non vraiment macha allah euh, doon doomi mbër surtout waaye mën a bàkk mën a bëre mën a fecc yombut ci làmb tey làmb xam nga li koy maye lan mooy tax mbër doon champion xam nga ko. waaw loolu fonk euh, say entraînement première fonk say nit say nitu démb fonk say mbokk fonk ñi lay jàppale ndax fi ma dëkk macha allah ndax kenn bàyyiwu ma ma nekkee si lu ma neex. chaque instant ku ma gis lu nga xamante ni si neexu ko ñoom nëbbuñu ma dañ ma koy wax ba ma dégg ak mu boobaa mu moytu man mii tamit am na loo xamante ni si jombale na ak sama bopp muy def loo xamante ni si dañ ma ciy xepp mm-hmm. moo tax toujours balaa may dugg si dara rek dam si waxtaan ak ñi ma si war a waxal ba pare. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, làmb ji fi mu toll nii kañ la kañ nga jàpp ni depuis bi mu couvre euh, confinement bi amee ba tey diggante jàngoro bi wàcc ci réew mi ba fi mu toll nii ci lan ngay dox ci lan ngay yëngu. waaw maa ngi entraîné jàpp sama naa ndax dama am combat man ak Pape Socé bu Rock Énergie Ouzin moo taxawal combat bi Ouzin moom moom moom moo taxaw sànq rek Ouzin mu ma woo pour hmm. jox ma sama avance mais man maa nekk avance bi doo ma ko jox ndax dama am kilifa hmm. muy père Babou hmm. te man duma euh, joxe bopp ba pare di rocci lamiñ demal nga jox avance man su ma woowee ni ma avance bi ñëw na nga ma ñëm jëli ko waaw sànq rek mais maa ngi samay entraînement nekk si lu ma nekk. incha allah am ngeen président bu bees muy Bira Sène ginnaaw bi docteur Alioune deme demee euh, ban gis-gis ñu ko am ak loo koy wax ci mbëri ndaw yi. waaw mu gën a geesu làmb rek. Mm. ndax ñun amuñu lu dul làmb dama bàyyi bay. Mm. bàyyi napp. Mm. bàyyi sàmm. wàcc sama yaay dëkk ba wàcc sama papa dëkk ba te bare naa si moroom ñëw fii uniquement pour làmb ngir teral si képp ki nga xamante ni si wërsëgam yàlla si ñun la ko jaarale kon ñoom ñooy suñu ay kilifa nekk ci làmb ji ngalawaay làmb ji nañ ñu ko fonkal te li mu dugg see si làmb xaw na dal xel mais lenn rek moo si xaw luus muy ministre Matar Ba mooy na waxanteeg Macky sàll mu tijj suñu làmb ji nit ñi ñu bëre. ndax ñun Sénégal amuñu lu dul làmb amuñu lu gën làmb. milliards yu ñuy jël di ko def si n'importe quel bu ñu ko defee si làmb léegi léegi Sénégal jëm kanam ndax ñun tey bu làmb xasee am rek jaaykatu ndox yeeg gerte yeeg ku ne mu ngi siy gis boppam. kon nañ ñu geesu ñu bàyyi ñu xel ñun xale ñun ñi kenn ku si ne am nga doole war nga mën a dem defi leneen lu la neex. Mm. mais duñu si fekk. mënoon naa jaar ni xëy jaar si gaal yi dem comme ñëpp. mais duma ko def ndax làmb laa bëgg bëgg liggéey nag suñu réew moo tax ma ni damay entraîner pour nekk champion. kon nag ñu ngi koy ñaan yan bi ko sénégalais yi yan ak axalu làmb mu oyof tool si boppam. ma jaajëfal bu baax a baax baax di am kontaante ak mbégte bu baax a baax a baax. waaw man moom maa ngi lay jëfal jaajëfal bu baax a baax a baax. jaajëfal bu baax di jaajëfal tamit waa wasaare làmb ndax wax dëgg yàlla. wasaare làmb international la. macha allah di leen ñaanal tamit seen sit bi dem ba nekk ay télé télé télé télé télé barki Cheikh Tidiane yéen ñi nga xamante ne si yéen a nekk si site yi. yàlla defal leen lu kawe seen njort ndax wax dëgg yàlla ay borom baax ngeen. te ay nit ngeen yu nga xamante ni si ñu ñuy dundal làmb ngeen. ndax yéenay fekk ndaanaan bu nëbbatu ngeen feeñal ko. bu yeneen télé yi defoon na yéen rek mbër yu si bare dinañu feeñ wane seen bopp. Hmm. jërëjëf ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi di leen jaajëfalaat encore une fois euh, la leen waxoon rek démb ak bërki démb loolu laa leen fas yéene di wax dinaa duggaat ci kër mbër yëpp képp koo xamante ni làmb am na ci moom cër am nañ ci moom yaakaar dinaa duggaat ci moom dégtal ko mbokk internet yi ba ñëpp xam ko moo xam mu am licence moo xam muy bëre mbapat képp koo xamante ne da wuyoo mbër rek xaar ma dinaa ñëw sa kër ma lay jëfalaat bu baax a baax a baax di la tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqalikoo waaw alhamdulilah di leen sant bu baax mm-hmm. di sant tamit wax dëgg yàlla ñii nga xamante ne si ñi ngi perdre seen temps yëpp ñëw fii mm-hmm. ku si mel ne Mara Ndaw mm-hmm. Pape Sow ay mbër lañu Seexu nger sayar Kayre aw ma seen fay ab Gueye ñoom Dam ñu nekk ci saal bi ñëpp Modou Fall Mangane xam tafa bàyyiwuma kenn kenn kenn ñëpp ñi nga xam ne Lamine. borom tawféex maa ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal gudd fan ak wér gi yaram di ñaanal tamit sama benn xarit bu nga xamante ni si mi ngi Sacré Cœur chaque mu may nemmeeku di xool si lu ma nekk di ma jàppale guddi ak bëccëg di ma defal lu ne muy Serigne Gora. di ko ñaanal bu baax gudd fan ak kii gis naa nu ma taxawee di tamit sama waykat muy Mbène jaata Seck. men jaata seek maa ngi koy ñaanal bu baax gudda fan ak sama nijaay Duudu faal mi ngi Hollande maa ngi koy ñaanal di ñaanal tamit macha allah moom moom sama waay la sama xarit la euh, di ñaanal tamit sama mag boroom kër gi muy Demba Jaw Sarr mi ngi itali maa ngi koy ñaanal lu muy yóot si àddunaam lu ne yàlla yombalal kak waa kër gi soxnaam awa ñoom kenn ñoom faatu bàyyiwuma kenn kenn kenn ak sama mag Anta Jaw koñ bi nag moom maçon spécial ndax néew na mbër mu ndaw di jóg àdduna toppal mm-hmm. loolu koñ bu mobiliser rek moom moo koy def mm-hmm. mënoon naa bañ a yàq seen yitte si dara mm-hmm. wax dëgg yàlla mais chaque instant ñu ngi may taxaw maa ngi leen di ñaanal gudda fan ak wér gi yaram kenn ku si nekk lu muy yootu si avenir am yàlla yombalal ko ko ndax nit ku nekk boo xaree dënnam teral ay way juróom ak ay am di jàmme moo si nekk kon ñu ñëpp yàlla nañu yàlla boole defal jàmm di ñaanal sam papa mi nga xamante ni si mi ngi dëkk ba billaahi kooku moom bu may wax si moom damay jooy yàlla xam na ko ndax am na foo xamante ni si toll na ma fa ndax am fi ma féet di sant waa cago témméy gaaya waa mbaan waa jagle témméy sa waalo waalo yëpp lu ko commencé Louga ba Fuuta bàyyiwuma kenn kenn kenn bàyyiwuma kenn di ñaanal nag sam papa ñi nga xam ne ñoo des ci làmba muy ñoom père Doubales ñoom père Mbaye Gueye ñoom maam góor gi Ndiaye ñoom Papa Kane Ngom sam père Ndiaga Sarr waa écrit Ndiaga Sarr moom maçon spécial barki alxuraan